سعد من في دلا زره إن جندا من خياف قد سرى هد قلبي من خيال قد سرى مولاي صلي الضر يزداد حزنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم تطاول آمال المديح لا ما فيه من كرم li ci am solo daal mooy yàlla na ko yàlla nangu neex gi nag mënu la ndax dañu wax ni ci nug géwal ak bu ci nug taalibe lu mu néew néew saf-sàpp ndax loxo yëpp ciy dugg waaw bala ñuy taal rek ñépp yëg ko def ca nag lañ cay def ñu jaxase njafaan sogaa yekk bu ñu yekkee nag mu sab-sab bu géwél ba nag bu géwél nag la wax ak bu taalibe waaw taalibe géwél rek taalibe daal ak géwél rek waaw kon nag nee la ñu waxoon démb rek mbir mi daal mi ngi yokku bu ñépp daal yëgee ni mbir mii ñun ak yéen ñoo ko bokk rek kenn ku ne def ci loxoom mu daldi gën a neex rek dàq fi fa tabaarakallaahu biig rek moom mii Seydou Bakane waxoon na leen ni biig sëñ Mansour mooy waxtaan ak yéen waxtaan woo xam nag moom sëñ Mansour da koy tënk rek xamagul nag xalaatam waaye yaakaar na ni wane ni lii ñuy def njariñ a ngi ci wax nit fu njariñ li ne gàttal ko bismillah su ko sëriñam kilifaam digalee mënul def lu dul nangu ndigal la te wéyee barkeb sëriñam suñu kilifa suñu bàyyi ndax moo fi toog jataayu suñu baay yu baax ya muy sëriñ Babacar Mansour di sama doomu turandoo di ñaan yàlla guddal fanam yàggal ko suñu kanam may ko wér moom ak ay magam ak ay rakkam ak ñun njabootu Cheikh Al Hadji maa ngi nuyu sama doom kon jërëjëf si Malick maa ngi nuyu sama doom ndax wax dëgg yàlla de euh, euh, defe naa ni. man ma ñaareelu doom bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz tuddee Al Hadj Mansour ndax kañu mag ñun ñëpp Al Hadj Mansour mu mag ma dafa teel a dem moo doon taawam waaw ca Ndar moo doon taawam gannaaw gi la yàlla doxal la ko soob ba indi Cheikh El Hadj Malick gannaaw gi waaw wax dëgg yàlla euh, ñu ngi lay ziyaara di la nuyu di nuyu sa mbokk yu baax yi nga toogal mu di Cheikh Seydi Aboubacar si suñu kilifa gu baax gii ci sa wet di suñu kilifa di suñu sëriñ. di ñu jàppale ci yërmandeem ak ndimbalam di la ci roy di ci xeeñtu sa tànk bokk kook magam di sa rak Cheikh El Hadji Malick mi nga xam ni yaa ko yar yàlla boole woon leen ci keppaaru Pape Cheikh Ndiaye Mabéy radiyallahu anhu ak seen keppaaru waajur yu baax ya Cheikh Seydi Aboubacar sa trondo sama trondo Cheikh El Hadji ak sa waajur yu baax yu baax ya ba El Hadji ak ba El Hadji Aziz ak ndey yaag bàjjen yaag te ñooñu ñëpp ci asira boobu la ñu bokk muy asiratu Cheikh El Hadj Malick di nuyu bu baax alxaaji Abdou Ngodi Ndiaye gannaaw suñu papa Tamsir Sakho mi nga xam ni mooy pap mooy maam Ilimane Sakho rek mooy mooy itam bay alxaaji Ibrahima Sakho mi fi nekkoon daan dundal xilaasu zahab rawatina ci bés yu mel nii ak gàmm gu mel nii ci jàkk ji ci jumaa ji di nuyu mbool di nuyu suñu baay bu baax bi Cheikh El Hadj si ak mboolem ñi fi nekk ci njabootu Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu maa ngi nuyu tam sama doomu ndey di bokkan Ndiaye ndax ndey doomu ndey la soppe la xarit la te yàlla yàgg na ak jàmm di nuyu ñëpp nag fàttewuma kenn fàttewuma sarak ju baax ji di Chérif Sidi Ahmed ak Tijani ibnu Cheikh El Hadj Aziz ak ñi nga xam ni day wax dëgg yàlla xorom baax na ci cin mooy njabootu góor gi daaw góor ak góor gi monsieur Ali Mbaye mi nga xam ni fu ñu toll yutxifuuna masaamiana bi anachida muwajjaha wa maktuba bi xutuutin wa ahrufin min nuur wa kullu hadihi alxutuut tantami ila cheikh alxaaji malik wa ila abnaihi albararati alkiram te ñooñu di ko dundal ci suñu kanam ñooy alxaaji Mansour Mbaye ak rakkam xaaji daaw góor papa Abdoul Aziz ak ñi ñu àndal ak mboole mbokk jullit ji fi teew nag di ziyaara ñëpp di nuyu ñëpp fàttewuñu kenn Euh, daje bi ñu fiy daje muy gàmmu su fekkee ni du farata ju ñu bind ci alquran itam yàlla moo jëkk a gàmmul sallallahu alayhi wa ba mu ko nee ci ayaat yu bare bare bare tey ma wax la la ma la làmbe ci ay ngëneel ci ay teraanga ci ay tëdd nga ci leer yoo xam ni man ak yow rek la ana min allahi wal muminuuna minni defe naa ni sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax man rek la ak sama borom gannaaw ga nag ku mos ca nga mose anbiya yeeg ulul azmak rusul yëpp cent vingt quatre mille prophètes téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay yonent alayhimu salaam yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi wa su fekkee ni dañ ni gàmm lan waaye ka yàlla invité dañu daan toog naan yàlla nee na wa kallama allahu muusa taklima walla maam ibrahima ñaan yàlla tontu ko seydina isa ñaan yàlla tontu ko ulul azmi yëpp ñaan yàlla tontu leen kan la ci yàlla invité ndegam mënees naa wax loolu boole kook seydina jibril alayhi salaam mu dem ba baytul maqdis wala al baytul muqaddas yàlla dekkal geneent yëpp mu jullee mu mu jiite leen jiiteem gu gu rëy ga jóge fa sunu borom ne ko yamul foofu da ngay ñëw ba fi man yàlla wax ko ci anam yu nasoo te rafet nu mu ko nase ci suuratu najm bismillahi irrahmani irrahim wa najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa borom cër bu rëy rek bu mën a am loolu loo xam ni yàlla moo nekk sa avocat moo la soloon mbubbu avocat te moom bés penc mooy président tribunal mooy procureur moom mooy moom mooy avocat de la partie civile yooyu yëpp moom la alaysa allahu bi ahkamil hakimin ma dalla saaxibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil aala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla taas ci barkeem te ubbi suñuy xol ak suñuy xel ak suñuy dënn ak suñuy ruux ak suñuy yokk ak suñuy yóor ak suñu suux ak suñu deret ak suñu lépp feesal kook leeram yàlla na ko yàlla def yàlla ni summa dana ah, fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxaa fa awxee ila abdihi maa awxee maa kadaba alfuaadu maa ree afatumaaruunahu ala ma yare di wax ak waa suuf nag wala qad ra'eehu nazla ak waa kaw yëpp wala qad ra'eehu nazlatan uxra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaxsha sidrata ma yaxsha moo tax bay alxaaji ma Mouhamadul Mansour sama turando wax ko moom tam ci yaay bu tedd ba maa zaaxal basaru wa maa taxe laqad ra'ee wala laqad ra'a min ayat rabbihil kubra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu egg kenn eggu fa yàlla waxati ci moom wadduxee wal layli ida sajee maa waddaaka rabbuka wa maa qalee wala laaxiratu xayrun laka min aluulee wala sawfa yuctiika rabbuka fa tardee kana am loolu ñëpp dañuy toog ci suuf di yónnee ay message ak ay lettre ak ay bataaxel bi ma ñaan di laaj yow dama la ñoddi ba ci sama kanam ma toog jàkkaarloog yow ni mm, euh, cetu ñaari euh, cetu xala ñaar fettu xala wax ak yow may la lu kenn amul te kenn dootu ko am sa gannaaw riifan bi nekk taara amaara min ayihil juusumi ابنته حتى رأى ما رأى من هاي مام الشيخ سيدي أبو بكر شيخنا وسيدنا وسندنا وغوثنا وإمامنا ومعلمنا ومرشدنا وقائدنا ورجاؤنا الشيخ الحاج مالك ابن عثمان ما وخلول رضي الله عنه moo ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa mel ne yàlla dafa jël ruuxam taf ko ci gannaaw ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi boot ko mu nekk journaliste am nekk reporter am fu yonent bi jaar mu filmer ko ni ko waa TFM di defee wala beneen télévision ñëw ci suuf nettaliñu ko li ñu am kenn amu ko waaw mësuñu ko bëgg a wax keroog laa ni ci symposium ba maam Maodo mësul wooteel boppam radiyallahu anhu lu nekk yàlla may na ko ko Cheikh Al Hadj Moustapha Diop radiyallahu anhu bàyyi papa Youssoufa Diop mi dafa daan wax naan Cheikh Al Hadj li ko yàlla may ci laafu leer su ko naawee woon tey fu ma malaaka yi nekk mu nekk fa waaye dafa roy rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uridu an akuna abdan ajuucu yowman wa asbacu yowman mënuma nekk dudul xeñtu tànku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk jaam boo xam ni tey ma xiif ñaan la nga leel ma ëllëg ma mar ñaan la nga nàndal ma te soo ma mayee ma gërëm la sant la loolu la ma Cheikh El Hadj Malick def. man você. السائر الحاسين أنت سواك باينا وغرك منها سلم باطنك حرب فذرها وشرق لا يقر بك الغرب بيثرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراكي طرف والقلب قلادة جيدي في أسابع من عليه أنزلت آيات كريمات يوما يفر عشير من عشيرته وأمه وأبيه ثم زوجاته كل امرئ شأنه يغني ذا فزاين غير رسولك مصباح الدجنات ما للوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن ياتي وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتي من زللي يا رب حالي فلا يخفى عليك لي لم تف فيك قلوب صاحب الأزل ببابك الأعظم المفتوح يدخل كل أتاك فإن لم يدخل يملي توسلي ربنا مولاي صل على خير البرايا من التفصيل والجمل سيدنا أحمد المحمود شافعنا والفاتح المغلق المسدود عن ملل والخاتم الفائق الأسمى لما سبق حاوي الفضائل عن مثل وعن مثل الناصر الحق بالحق المؤيد بالنصر القوي بدين فاق بالملل وإنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم المبعد الخلل ثم على آله يا ربنا حققت به ومقداره العظيم يا أملي اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم ياخذ بالجريرة ولم يأتك سترة ويا عظيم العافية ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السفح ويا عظيم المن ويا مقل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي واسيدي ويا مولاي وغاية رغبتي يا ربي واسيدي ويا مولاي وغاية رغبتي يا ربي واسيدي ويا مولاي وغاية رغبتي أسألك أن لا تشوي خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار بركة مكة بركة مدينة بركة فاس بركة تواوان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 ñoo ngi leen di nuyu ci 2STV ci émission bi nga xam ne burdatul madih la tey nag mu nekk juróom-benneelu bunt juróom-benneelu buntu bi ñu jàng tey mooy fi Muhammad bun Saïd al Buseyri di waxee teddaayu alquranul karim maanaam màggaay gi nga xam ne alquran màgg na ko bi muy ubbi bunt bi dafa wax ne wurus bu fekkee ne dañ koo nas ci buumu nee na taar bu mu amoon day yokk parce que per boo xool rekk mu dend ak moromam danga naan moo dàq bi mu dendal mu ne waaye nag ñàkk kaa nas ci buum firiwul ne taaru wurus day wàññeeku mu teg ca beneen bayit ba ne jarul may guddal